nuyuwaat naa leen daal di leen dalal jàmm ci seen euh, chaîne bi nga xamante ne yéen a ko taamul seen bopp yéen a ko bëggal seen bopp mu di Sénégal Buzz 221 euh, voilà tàmbaliwaat nañ alhamdulilah rabbil alamin euh, bu loolu weesoo nag tey maa ngi fii nga xamante ne moo di Ngor mu di rond Ngor ma ñëw nag di waxtaan ak askan bi rek di laaj seen xalaat ci li nga xamante ne woo la phénomène la bu xew muy li nga xamante ne moo di violence violence bi ni mu bëree fi mu toll nii te maanaam ci ni mu gën a fësee mooy ñaaru ñaari waay dencante yi nga xamante ne moo di couple yi maanaam ci mu gën a fësee moo di ci entre ñii sëy muy couple yi macha allah tey nag loolu la ñuy waxtaanee damay daal di def nii rek ànd ak sama caméraman bi nga xamante ne nee la macha allah mooy jinne caméraman yi moom lu mu caméramanul lu mu camérawul baaxul mu di caam rek ma daal topp rek ñu dugg si askan wi ñu daal di xool lan euh, naka la ñu gisee li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee. Euh, sëñ bi naka nga gisee phénomène bi nga xamante ne temps yi dafa rëmbee réew bi muy ñi nga xamante violence bi nga xamante ne dañ koy def te jëmale ko fenn fi nga xamante ne moo di ci jigéen ñi naka nga gisee phénomène boobu. waaw ah, yéeme na trop ñun jigéen ñi moom yërmande la ñu war a dund ak ñoom daal jigéen moom da war a yërëm daal xam nga loo waaw violation moom xam naa ñi koy def moom xam naa ànduñu ak seen sago daal waaw doy na waar daal rafet rafetlu wuñ ko dara daal parce que soxna yi yërmande rek la ñu war a dund ak ñoom parce que ñooy suñu yaay xam nga jigéen mooy magasin daal mooy jur ku baax xama mooy jur wàllu xam nga yaa gën a xam waaw ñu ngi koy ñaawlu trop bu ñu sañoon nag état bi xam nga taxaw si quoi xam nga yokk sécurité dëkk bi xam nga yaa gën a xam. waaw jàmm mën a am daal waaw ñu daal jàmm rek la ñuy xamoo ñoo di daal waaw. lan mooy problème bi ci diggante couple yi ba jamono ji euh, rayante beeg violence bi bëri ci lan mooy problème bi. ah si couple yi nit yi ñoo goreetul rek nit yi ñoo goreetul jikko yi ñoo yaaxu waaw jikko yi ñoo yaaxu dañu war a defaraat jikko yi xam nga jéem a sàmm suñu ngor tamit waaw parce que nit amul lu dul honneur voilà man loolu laa si gis ah waaw. macha allah ñu ngi lay jaajëfal. waaw jërëjëf soxna si. merci donc Sénégal léegi man dama cee jaaxle quoi. Euh, booy laaj ay nit ñu bëri da nga naan duñ sen presque doo pour nga dis ba rencontrer cinquante personnes mën naa la wax ni trente yi presque duñu sénégalais. parce que ñun il faut ñu dire benn affaire wax benn affaire ñun suñu coutume bokk ak yeneen dëkk yi ñun dafa am loo xam ne ci loolu la ñu yàlla yare loolu mooy lool la suñu waaju ñu yare mooy la non violence boo duggee ci oto boo disee mag nga xajal ko mais léegi da ngay dugg ci oto sax dis benn xale bu toog xale bi di ñëw ngay ñëw mu dumoo yu nele le wala mu sëgg wala muy miir miirlu pour wareen loolu donc coutume bi moom moo changé te loolu lu ko changé mooy lan Sénégal ku nekk ku mu nekk nga dugg y a beaucoup d' étrangers da ngay gis ay étrangers yoo xam ne liggéey ñu defoo ñu dara foo leen bu ñuy génne ay liaas lu ñuy génne mais loolu c'est fan fu ñu koy jëlee fu koy jëlee loolu moom vraiment war nañ ko xoolaat bu Sénégal actuellement nii boobu naa wax ni population bi léegi étrangers yi ñoo ëpp sénégalais yi bu m'excusez je ne suis pas un raciste ou xénophobe mais cest di dire dama def constat boobu quoi parce que ñun ni ñuy dundee ak ñoom ñu ñuy dundee du benn. loolu war nañ ko seetaat frontières yi ce n'est dañoo bëgg l'Afrique euh, euh, Afrique unie mais bu fekkee loolu ñoo yéen a bokk ay coutume xam nga ñun Gambie presque ñoo bokk coutume parce que ñoo yarandoo bokk noonu dëkk mais yeneen yi dafa am loo xam dañ koy def. du nekk loo xam ne seen normal te ñun du c'est anormal chez nous. macha allah papa ñu ngi lay merci beaucoup soxna si. doom boo xoolee lu dul li mu yor ci poosam te jéemoo xool niteem te ku ne dégg na fi ñuy wax ci wàllu nit ku war a nite nit day dégg ñu ne bon da nga war a nite du fekk dañ wax danga nga war a nite da nga war a nit lépp looy def boo jëlee sa doom dem ba di ko maye war nga xam ki koy may kan la ci jikkoom xam fameem xam fu mu bokk. ak moom lan mooy liggéeyam parce que tamit am na loo xam ne bu fekkee ne dafa feeñ ci koom-koom bu jeexee am leneen lu mu jur bu fekkee ne da ngay jël sa doom tamit di ko maye ci condition bi nga koy mayee moom nekkul moo joxe avalam ne dafa bëgg yow nga jël ko dem maye ko yaa ngi créé benn inconvénient parce que li ngay maye day am limite après parce que nit la léegi nag li nga xam ne message la boo xam ne dama koy lancé pour góor ñi ñun bu fekkee ne jigéen mat na kenn du ko muur di ko andi di ñu ko jox bu fekkoon ne jigéen am na responsabilité yu mag yu ko yàlla jox kon dañ koy jox muy suuli nit ñi ci armeel yi bu fekkonte ne jigéen am na noo xamante ne tey tolluwaayam moom moo war a diriger ñëpp ci àdduna kon donc tey ku ci nekk sa yaay wax la toogal sa kanam nga toog doo dem fenn na ku nekk jàpp ne jigéen bi nga nekkal sa yaay la sa rakk bu jigéen la sa mbokk bu jigéen la te nag jigéen boo ko seetlu dafa am lu ci yàlla def moom rek ci moom la ko def képp kuy kilifa fii ci kaw suuf jigéen moo la jur koo mën a doon nag ak loo mën a am ak foo mën a juddoo nga doon ku baax nga doon ku bon jigéen mooy sa yaay léegi nag li ñu mën a naatable ci jikko ba tax ay nit di rey moromu nitam war nañ ko mën a nangu tey ci biir société bi li fi am li fi am mooy ñu ngi jiital am-am ñu ngi jiital ay warante ñu ngi jiital wax ju ñaaw xasante yooyu yëpp warul am tey nag nit bu nekkee ne yow dañaa jël nit jox la ak nu ñu la ko mën a joxee ak xaalis boo ci mën a def nit a gën a cher liñ la jox waxuma la ñu jël jigéen jox la mu war la jural njaboot war la dab ci say bànneex war la jox nga lekk war la jox nga naan war a fóot say yére ku la gis naaw la respecté la bu fekkente ne da ngaa yor garab sa biir kër te doo ci def ndox doo toog ci ker gi loolu mooy jigéen góor tamit maa ngi koy lancé benn message bu gën a am importance pour mu def ci taxaw seetlu saa boo toogee yow góor nga toog mu wóor na yow li nga yor jeex na yorotoo dara gisoo benn góor bu ñëw ci yow gisoo benn jigéen bu ñëw ci yow xamal na yow yaa ngi toll ci diggante boo xam ne danga war a delloo sa bopp ci yàlla toog jaamu yàlla jéggalu suñ borom soo toogee ba loolu mën mën cee nekk ba nga xam ne yaa ngi ci nekk soo gisee jigéen ñi ñëw xamal ne am na luy ñëw ndax ñoom yàlla dale na may ñoom ñooy gis leer gi ñooy gis liy ñëw te doon lu baax jigéen ku nekk ci lu bon lu ne doo ko gis mu ñëw ci loolu muk day am lu fa nekk moo tax muy ñëw la fa nekk tax muy ñëw nag waaw loolu bu fekkee ne yow bëgg nga di ko yor chaque chaque jour waaw mais toppatool jigéen sargal ko man maam jaara laa am sama kër barke maa ko ñaan Serigne Touba mu may ma ko mais xoolal lu ma am lu ma metti sax bu ma gisee maam mu ne lan la ma ne ko lii mu ne ma lii wala léegi dama koy nëbb lu ma metti parce que bëgguma am lu ko metti nañ jàpp jigéen ñi yërëm leen rek nañ leen yërëm jamono neexul suñu yoree ñaar dërëm wàcc ci kër gi nañ may lépp sax ñu ree après ñu nekk ak ñoom waaye dóor ko ba rey ko non loolu moom defarul société defarul lenn defarul diine defarul aada defarul dara. lu tax léegi mu fréquent punition yi ñoo ñoo ñoo métteetul wala lan la parce que gis nañ ne Sénégal benn phénomène bu amee day mel ni genre toppandoo la day fréquent. waaw am na loo xam ne tamit aussi nañ koy wax parce que mu Sénégal li mu ngi ci wàllu nguur gi nguur gi moo war a jóg taxaw défendre jigéen ci position yëpp. ba pare nag aussi sanction yi nga xam ne moom la ñu war di teg ci gars yi nga xam ne ñooy def li tax ñoom ñuy dem ba rey nit li tax ñuy def ba rey nit ñu jàpp leen yóbbu leen ci kaso bi. teewul ba ñu leen yóbbu ci kaso bi tamit ñu faj leen parce que am na nit état bu muy toll ba def def njome yi parce que wérul du parce que mu ngi solul ba rafet de mu ngi yor oto mu ngi yor xaalis non du loolu parce que am na benn niveau boo xam ne nit ñi il faut que ñuy doxal ay sensibilisation état moo ko war a def jël ñi nga xam ne ñoo xam li loi di wax ci wàllu nga jaay yàmba nga rey jigéen nga sàcc ñuy def ay sensibilisation auprès de la population loolu dina tax peine yi wàññeeku crime dina wàññeeku lu bëri na wàññeeku mais bu fekkee da nga bëgg yow balaa nit ki balaa moo xam li droit di wax wala leneen loo xamante ni tey jii yoon war na ko dogal ci kawam rek moom mu def ñomme xam nga un ignorant la c' est un bu ñuy taxawal ci kanamu juge war ko àtte juge bi tamit aussi ci fee nga xam ne relaté nañ ko au niveau de la gendarmerie moom lay jël àtte mais tey bu fekkoon dañoo def commune bu nekk ñuy def les jeunes étudiants yi nga xam ne ñoo nekk université ñu commencé def seen rapport de justice di dem ci ay ay commune créer ay ay semaine weekend yoo xam ne c' est la ñii ñu jàngal leen nooy def ba am liggéey sa développement personnel jàngal la yoon lu mu tere ak lu dara tax nit nite parce que tey ñun ñëpp ñun sommes régis au même lois et règles tey ku def ku tooñ ak degré boo mën a am dañ la war a atte nañ la war a atte mais su fekkee ne yow na xamoo yoon lu muy def tey da ngay def loo xam ne balaa ñu koo xam tey jii fekk def nga ko ba pare ñu door a taxaw naan wey loi nee na ci lii li ak lii loolu photo état la état na déployer ay moyen jël jeunes yi nga xam ne ñoo nekk dans les universités di jàng ñu créer leen ay séminaire ñu dugg ci biir dëkk bi teg ay ay chaise nit ñi toog ku am problème sa gàlle boo xam ne jaaxal na la ci wàllu justice boo ñëwee balaa ngaa yegg gendarmerie ku ñëwee encombré gendarmerie ñu sensibiliser informé la bu ko defee y aura moyen de délit y aura moyen de problème ku nekk di xam li nga moom ak loo moomul loolu mooy yoon bi man loolu la gis pour état. macha allah ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf merci beaucoup yàlla na yàlla def dégg ak topp ci Sénégal yëpp ñëpp dégg ko incha allah. lii laa leen jëlale woon fi nga xamante ne moo di Ngor euh, mu di li ñu doon rek macha allah ku nekk dégg na askan wi lan moo ci seen xalaat ak lan naka lañ ko gisee macha allah ñu leen di jox nag dig daje beneen yoon euh, ak beneen thème ak feneen fu ñu koy defee incha allah nii naa la nii rek lay demee saa su nekk fii ci Sénégal Buzz 221 ngeen di ci ànd ak seen sista Fatima muy dugg ci askan wi rek. di xool naka la ñu gisee li nga xamante ne moo di lii gën a fës ak euh, thème yi nga xamante ne buñ ko tegee ci table bi dina leen daal di neex di leen jox dig daje beneen yoon di gërëm sama caméraman Thiam di gërëm ñëpp di leen nuyu di leen jox dig daje beneen yoon incha allah toujours su Sénégal Buzz 221.